ni ma mel yéen ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal asalaamaaleykum chers internautes Allo Dakar TV dalal nañ leen seen émission li ci xel yi tey dañu wàcc laaj sénégalais yi nga xamante ne ñoo rey yore seeni oto nan lañ gisee carburant bu Sénégal bu ngeen ci bëggee xam dara topp leen ma léegi lépp dina leer fii ci biir Allo Dakar TV. ñu ngi fi nga xamante ne dajeeg benn sëñ sëñ bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. tur naka la. Cheikh Baara Cheikh Bara euh, gannaaw bi ñu la nuyoo ba pare dañu lay laajte sa sa xalaat ci carburant bu Sénégal. carburant bu Sénégal ah man nag man seen laa taamu parce que seen laay solee moom laa xam quoi. lu tax nga taamu ko. waaw parce que ab gis naa si économisation bu baax quoi waaw moom moo gën a moyen daal si man ci li may consommer daal. moo si jënd am ci problème sa moteur. Ah non mosuma am problème nag franchement parler. lan ngay ñaax ñi ñiy kii pompiste yi. damay ñaax pompiste yi aussi ñi bañ ñuy ñu respecter client yi il faut ñu respecter client yi parce que ci la bokk d'abord il faut ñu respecter client yi dara dara xew surtout ñun taximan rawatina nga xamni ñun ak ñom ñoo dëkk ñun duñu sol ay 1000 francs ay 2000 francs plein la ñuy sol chaque jour di rempli mais nag il faut tamit ñu wañu ko tamit nak carburant bi cher na fi tollu voilà parce que des fois tamit am nañ tamit lo xam il faut ñu leen koy wax aussi tamit di leen ko ñaax parce que taximan bi chaque jour mu am problème ak client bi wécc te ñun ñom lañ yaakaar ñun station yi kon suñ fa duggé rek war nañ mën am yërmëne di ñu wécc ñuy dem parce que ñun ak ñoma nek parfois da ngeen di wut weccet ñu bañ. waaw parfois dañuy wut weccet moom ñu bañ franchement parler loolu mom loolu tamit dina len ci critiquer quoi parce que ku ñu dul critiquer suñu mbokk taximan dañuy weccante suñu biir mais des fois tamit am ka bo xamni il faut station rek nga mëna dugg pour mu wecc la mais des fois da ngay ñëw pour mu si aju ñun ak ñom nak ay doomi bañal lañ ñoo bok nday ñoo bok baye parce que mënu mënu mënuñoo dem bàyyi ñu ñun mënuñu dem bayi len mais nak buñ ko wañé tamit dina baax parce que Carabina war nañ ko wañ merci beaucoup yéen tamit ñu ngi len di gërëm di len